mooy kan gi la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko waaw lépp daa askay ñu ñëw fekk leen fii seen koñ ngeen di joxe ay ndogu daa mel ne yàgg ngeen koy faral di def waaw waaw lii mun naa ñu dañ judd fekk ko fi quoi lii moom joxe café moom ñu doomu garaayam dañ judd fekk ko fi bu ñu ko defee suñu devoir la bu ñu ko devoir la ba dañ bokkoñ boo xam ne koñ populaire la foo dëkk Grand Yoff lu leen bu leen ma leen loo mais ñu ñëpp xam nañ doomu aadama ñun Grand Yoff ñun amuñu amuñu sens de kenn liggéey lañ xam jaamu yàlla lu waaye lu fekk nag gisee ñu ko yàlla moo xam ñun dóor waa lañ xam xamuñu leneen te kafe ji ngay wax nag Baye Fall bi lii day sàq ñun bu ñu deewee am na ñuy ñëw relève la rek xam nga loolu la ñuy def waa relève la te dañ koy def te yàlla tax xool si benn intérêt dañ koy def te yàlla rek tax buñ taxee yore kër la waaye am jox ñu loolu la ñuy jëlaat def kafe def suukar def meew jënd mburu ton wala espagnol loolu kese la waaw loolu la si. bi mooy ñaata édition ngeen koy faral. waaw moom laa lay wax ni dañ judd fekkoon su ma waxee édition damay juum su ma waxee édition damay juum waaw ko doon def su ma waxee la rek man damay damay juum quoi man dama judd fekkoon fi 36 ans maa ngi grand je suis né la 4 kon loolu xam nga du tey ay années la Khalifa moo nekk nii boo jaadee ni gàll moo nekk nii fii la juddoo fii la yoroo école bee la jàngee Mor Fall. kon xam nga loolu du tey waaw su ma waxee su ma waxee rek lii rek damay juum quoi waaw man dama judd fekk ko fi moo dama ne li éternel la dañuy dem ñeneen ñëwaat relève la rek. jaajëf xaar ñu xool yéen. waaw am même ba yokku rek na gars yi kenn bu leen fay dañuy bàyyi rek jaajëf. jëlal ma kafe jëlal ma gars yi bàyyi faale gars yi ñuy sekkee jëlal ma cin bi jëlal ma cin bi jëlal tey ñu ngi ko ñu Zarko yaa ngi gis lii la ñuy def chaque année. nee dañ koy bañ koy def yàgg na seen i grand ñoo ko doon def ñoom ñu juddu màgg daal jël relève bi jëlal ma jëlal ma foofu kafe gi fii lu fi nekk kafe moo fi nekk waaw yii mooy kafe gi pare ah yii leen suukar ba pare waaw yiñ suukaragul la ok dute la ak café jëlal ma bàyyi faal bi waaw yow yaa géré wàllu séddale waaw onze bila bismillah inna wali yàlla waa Lutte TV ñu ngi leen di siyaar di leen sant waaw di leen ñaanal jàmm bu baax di ko sàkku seen yéen waaw tey nag gis ngeen yéen a gisal seen bopp nii la demee lii lii moo fi am quoi waaw. nii lay demee chaque jour. waaw chaque jour ba koor gi jeex nii lay demee waaw nii lay demee ba koor gi jeex waaw. da ko fi baas pour tey ji wala da fi bàyyi ba koor gi jeex comme ni ngeen bâché fii. bâche bi bâche bi éternel la bâche bi bu koor gi jeexul kay duñ ko dindi bâche bi koor gee tax ñu def ko fi waaw. koor pour jox jaamu yàlla yi ñu ndogu rek waaw yaa gën a xam. séddale ndog yi naka ngeen koy dundee seen wecc yi ngeen di jël dajale ko pour joxe ko wala majaal bi la wala da am ñoo xam ne ñu ngi si ginnaaw di si jàpp nan lay dee. non bi complément la rek majjal bi complément la parce que des fois Baye yi xam nga ñi fi nekk nii ñooy jël seen liñ am xam nga teg ko ci ñu jënd kafe Baye bi day complété comme bu ñu waree jënd suukar mu manqué nii ñu dem si këll gi jël fa 150 wala ñu jël fa fukki dërëm dem jënd xam nga dem jënd suukar wala yooyu noonu waaw mais këll gi moom complément la rek waaw su du si lañ basé wu quoi complément la waaw. man nga ñu wax ne bii mooy ñaata édition ngeen di faral di joxe ay ndog. bi yàgg na de édition yi est-ce que mën naa ko yàgg na de yàgg na de yàgg na trop sax waaw nii lañ koy jàppee nag moom chaque koor moom nii lañ koy jàppee ba koor gi jeex waaw mais édition yi moom wax dëgg fa yàlla moom bàyyi ah, bëri na de bëri na de waaw bëri na de di ñaan yàlla mu yokku nag waaw ñaan yàlla mu yokku. jaajëf jaajëf maam. Jelama Zarko ngi noonu agsi na si konam Jelama Zarko ngi noonu jëlal ma ko Jelama Zarko mi ngi noonu agsi na si konam si café gi jëlal ma mu ngi noonu yaatal gi ah, naka ah, jaamu ji naka kër alhamdulilah oui war ma laat de naka jëmm ji taw feex taw feex yàlla depuis depuis tuuti na de ah, hmm. di bu baax aja gaynde góor bu dëgër yaa wow yaa xeere dëgg bu baax a baax kay ba Serigne Bamba chaque jour mooy yow chaque jour loolu bi di la fanaan nijaay yoon nga ñu de du mu demee noonu. saa moom day xëy rek ñëw. jaxas la may de jaxas. waaw mais ni ñuy def tey la àjjuma. tey la waa gis nga waaw waaw gis nga dañu day Baay Faal lañu dafa leer Baay Daaru yi sotti barki Sëriñ Bàmba naka la nag naka koor gi déwénati leen baal ñu wax lañu yàlla boole jégal te at yu bëri teew fi ay déwéni déwén mel ñëwoon nañ fi ñëwaat nañ fi ren hmm. waaw def yàlla na ko yàlla di tollanti rek ñu yàgg ko fekkee ci jàmm jàmm di am loolu la ñuy ñaan looloo jëriñ ñaan kooru jàmm di ko wax Sénégal àdduna yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di leen wax xam nañu baal ci koor gi ñoom ñëpp sànni ñu ñaan noonu bandiraaɓe haalpulaar en men mbeltiima no feewi on jaaraama allah jaaraama xam nga di wax suñu mbokku haalpulaar yi xam nga ñëpp daal képp musulman comme chrétien sa xam nga Grand moom mooy loolu yaa ma gën a xam eh, dafa am parti musulman parti chrétien te donc ñun ñu ngi dëkk te ñu ngi ci jàmm bu ñu koor bu ñëwee doo xam ne musulman ak chrétien comprendre nga ñoom ñëpp dañuy jàpp ci kafe gi waaw doon ay Baay Faal taxu liggéey donc xam nga dañuy sàkku ñaan fépp daal si barki ma mais bu ñu duggee Grand Yoff dañoo gis ne kafe yi xaw na bari fii nii biir Grand Yoff foo tourné di gis café naka lañ koy dundee fii nii kafe dañuy gis ñu teg fii gis fii café gisaat. waaw loolu moo lay wan ni population de Grand Yoff rek Grand dafa yaatu. comprendre nga mais loolu tamit ak cant la rek buñ demee bàyyi li tax xamoo fas yéene joxe café waa ñuñ dara dañu yokk waaw de jaral nañu ko quoi borom bi jaral nañu ko dañuy yokk quoi mais séntuwuñ ci dara yee bu ci ku ci waaye mën a jàpp na xam na ci jàpp ak fu kafe nekk fu waaye mën a ne yee café goo romb boo fa joxee àddiyee du la waañ dara yee sarax la rek yee mën nga ñëwaat naka la kafe gi commencé nan la démarré da toog nii xëy rek xaar ñu commencé si hmm. kii tooguñu xëy kii génération par génération la kii yàgg na fi du tey bi Grand Yoff di Grand ba léegi fii teg kafe ba suñu ay grand frères yi ko tàmbale woon ba tey seen ay rax ak seeni i ñoo koy tegaat yee deret la quoi nekkul lu xëy rek sotti non non lii daf yàgg cosaan la fi yàgg na. ñu xam édition yi cinq la def. <laughs> kii est-ce que deful ay ay ay ay quinze siècles <laughs> yee yàgg na de ñun fii lañ ko fekk de. suñu ay papa ñoo ko doon def yee te ñoom seen ay papa ñoo ko doon def donc bu ñëw ba egsi si ñun cosaanu Grand Yoff la kooku boo demee Rino Reni da nga ko fay fekk dëggam déet <laughs> boo demee Rino Reni da nga ko fay fekk dëggam déet waaw seen si si si café gi aussi daan ngeen faral def ay cant si biir weeru koor gi ndax loolu da ngeen am date bu ngeen jàpp pour defaat ko wala. incha allah benn dat waaye dañ koy def jàppaguñu benn date waaye dañ koy def loolu force la loolu ñun ñoo ko fa am loolu loolu ñoo ko fa am. Eh. diis na de ñaari junni daa mel tamit dafa yaatu kii tàmbali la rek daa yaatu tàmbali la du dara lii tàmbali la rek dafa leer. Eh. xool xamewul janj joor ku mu gis bëgg la ku mu gis xam nga jox la cër bi nga moom te loolu mooy nit nit boo bëggee boo buggee jóg ca kaw da ngay wàccee sa bopp nit boo yëkkatee sa bopp rek da ngay dig te moom dafa wàccee boppam par Serigne Touba waaw ñu koy rafetlu nag ci barke koor gi combat bu mu amatee rek yàlla na ko yàlla na ko daan waaw si dooley waaw dooley Cheikh Ahmadou Karam Mbacke Noreyni waaw wasalaamun ala mani dabaxan huda jaajëf xiif ma day mbalak foo ko fekk mi ngi mbalak non xoolal gisoo ko nelee xale bu ndaw wéeru ci pot lambe ñëwul xiif zoom ko zoom ko di socc te xoolal maçon la de essayé dafa jël congé moom eh, xoola weeru koor ba weeru koor lay jël conseil <laughs> lay noppalu <laughs> ñemewul xiif. soo bi daa tas. xiif tukulóor la ñemewul xiif. bu ñëwee si bu génnee foofu bu ñëwee si wàllu combat yeeg yu demee noonu coow li coow li lan la lu waral coow li. waaw li waral mooy zaru. <laughs> man lay bareel du bëreel man gars yi di la xëccoo nu mu demee. di ko far bu jar xanaa far bu jar mu ngi nii. Zarko dafa neex a jaay. Zarko mooy làmb. dafa neex a jaay eh, loolu moo tax loolu tax gars yi di ko xëccoo. Eh, loolu produit bu baax bu ñu gis dañ koy xëccoo dañuy daw uti ko eh, di ñaan yàlla xam nga yàlla nañu yàlla lafal cat rek mu ngi gudd fan ak wiir fi ñu jëm ragaluñ ko quoi. mais ñu gis ne sax quoi à chaque fois bu jógee si combat rek day jël combat boo xam ne amateurs yi ak supporters yi ñu bëri nan noo waru ko woon jël waru ko woon jël loolu loo ci. day daw rek amul arrêt day daw rek combat bu ñëw rek pare dañu. day daw rek ndax li ñu war dafa bëri ñuy dimbali dañoo bëri li ñu war a def dafa bëri kon tooguñ di xaar benn combat walla ñaar lu ñu fekk si yoon rek dañuy buub yóbbu. si yi nga jógee est-ce que yoon la woon nga jël kii di bébé. pour man combat mu bëri yëpp ñoo yem. man combat bu dul combat royal pour man kii si des ñoo yem. boo jëlee Eumeu Sène nga jël Yékini nga jël Bombardier nga jël Tyson combat boo jël te bëriwoo combat royal pour man combat yëpp yem. yee man loolu laa jàpp quoi yee man pour man làmb ko combat royal rek moo ci diis eh Mouhamadou Lamine Bara maagal de tawféex waaw yee. sa façon bëre bi ngay bëree est-ce que aussi tamit arrangé wul kii di Bébé Diène. non moom façon bëre bi muy bëre moom man moo ma neex non waxuma la arrangé daf ma neex. mooy mooy ban façon nga jàpp. non loolu bu ma xam la bi ma xam la ko loolu. <laughs> <laughs> loolu ëmb ëmb màgget la <laughs> da koy. bee jën xaar de. man mos nga ma ma xaar <laughs> yow man ku ñëw si man freiné par force day freiné ba pare xëcc frein amee dafa leer mooy. freiné xëcc frein amee waaw da ngay laajte. ñu ne Zarko dina jeexal booy dina jeexal booy nga tegale tegale tegale macha allah ba ñëw si bébé jën tey jii ko moom kañ kañ góor man nu ma arriéral góor te góor dox sama kaw jë Bébé Diène bu arbitre sifflé day fël lay dem taxaw day daw day génn si biti day génn bu génnul fu mu taxaw dam ko fay fekk te dama koy caw koy corriger amul yar ba ñaax taalibe waaw non si dafa mbër yoo xamante ne xam nga foog nga jël leen sifaay leen tuuti ñu xamaat luy luy àddina moo tax ñu jël ko hmm. yar ko rek moo tax yow nga jël am. Uh-huh. te samay loxo bopp laa ci sentir bëgguma keneen defal ma ko. say loxo bopp. waaw laa ci sentir. mooy lan mu dóor ma ma sentir ni Bébé Diène dóor na ma. mu mu dóor ma bu xoolal na ma dóor sax ba ma toj ma xam ni dóor na ma ba ma toj si laay gën a sentir pour man mën a dem ci moom. man loolu laay gën a sentir bëre boobu ak moom laay gën a sentir ñu dóorante ba ñun ñaar ñëpp toj ñu ñaar ñëpp dem ardo ñu ñëwaat te loolu dinaa ko defloo par force. combat bi yaakaar nga ci xeex waaye kuy wax nàcc ak ardo kay xeex boo ko deful doo nàcc xanaa non mënu ko bañ sax par force man maay diriger man maay wax lu ñuy def. li ngay wax ay teg xel nii rek pour xeex ko mu xeex. <laughs> waaw moom kay sa waay man daf maa jaaxal. yow am na ñoo gis sa combat yu mujj yëpp si bëre la jeexee tey nga ñëw bëgg xeex ak moom. na mbër mu mujjee bëreel dama moon benn signature mu ne ma tàppet la ma ne ko waa garaawal jour jooju dinañ xam kan mooy tàppet <laughs> te moo ko suddee Bébé Diène amul sens ndaama la. <laughs> daa bari pëccax pëccax de. dafa <laughs> mbër mu rawee. man ay loxo bambara laa yor te dama amun dóor te dama xam fu muy duur hmm. sa sa combat yi da nga cee xeexul xeex boobu noonu bagaar bi combat yi mujj deux combat. Eh, eh, man ak sama combat bu mujj bëgguma wax turam quoi xeex naa wala xeexuma non dama la laaj yow. li demeewul noonu du xeex bu yàgg. du damaa xeex ba am buntu bii nag di nga gis xeex bu raw boobu parce que adversaire bi amul sens dafa gàtt pour nga dóor ko jarul ngay dugg ci gaaram Bébé Diène dafa gàtt. yéen ñaar taay xawul neexul. non yow dama bàyyi dama ñaar yéen a tolloo eh, dafa leer amul sens dafa gàtt. buñ too yow bu ma tolloo woon sax xel beeg yow waaye doy benn sax bokkul sax hmm. du benn. mais hmm. ñu gis ne à chaque fois Zarko bu duggee ci arene bi loolu mooy indi ñi naan sawu mbaam la ak sawu kii la à chaque fois boo ko sottee mi an odeur boo xamante ni man moo ko nooyee man sama put bi la des. ñu gis ne mbër yi nga xam ne dañ ne woon dañ koy waajal ba saw bi du agsi ñëpp da leen indil ñii biteel nga indi 10 litres ñee nga indi biteel bu ndaw. loolu lan la lan nga ñu mën a leeral si loolu noonu loolu saw la lan la lu mu doon. loolu loolu xam nga la ñam xam. ñam xam loolu mooy ñam. loolu mooy ñam xam. loolu mooy ñam xam ku ko ñamul mënoo ko xam. ñamul mënoo ko xam waaw foog mu yëpp faaw ñu ñam. <laughs> bàyyi làmb ku ma jël di ko ñam xanaa nga bañ ma jël di ko ñam. mënoo wax ba doo ko ñam xanaa loolu force la. par force par la force doole mbaam. sarax ndongo rek wala mu tibb ak dooleem. billaahi wallaahi ndox dafa leer man làmb lu mu laaj mu koy def guddi bi ma toll nii làmb lu mu laaj dama koy def. du ma si arrière yotaa. parce aussi am na ñu naan Zarko jëlu xaalisam di si ñaanloo di si du fay sëriñ ak yu demee noonu nga ñooñu dañoo wér. yow pour yow waaw nañuy gis loolu rek ñoom loolu nañuy gis loolu. waaye gis loolu rek. Hmm. làmb dafa am réalité. làmb daa am ay réalité. te xar fa xuufa boo ko xeebee xeebee dal naan fuuf yóbbu te man du ma xaar ba mu naan fuuf ci dëkk bi lañ dëkk. Uh-huh. ñu gis ne si diggante bi daam am combat bu taxaw ñu gis ne Siteu sa waay la Modou Lo moom yenn dëkk te yàgg ngeen lan ngeen mën a si diggante bi. parcelle la dëkk de. Modou nga dëkk waaye Modou Modou yaa ñoo gën a xam de. si. waaw gëm naa ne ni nga ko xamee sax kenn xamee ko eh, combat boobu loolu eh, li ci gën a neex mooy waa parcelle commentaire ko ak waa jàmm gën parce man moom wax dëgg yàlla li ma intéressé actuellement mooy Grand Yoff zone 7B de Grand Yoff moo ma ëppal importance quoi Grand Yoff kese man lu lu ma waaye wax lu dul Grand Yoff pour man mooy loolu koi que le meilleur si ñoom ñaar xam nga mooy loolu làmb la sport la ñoom ñaar ñëpp ku ci gañ baax na pour man yee yee man. gis nga ñëw stade di ànd ak Modou di yëngal. mun naa ñëw stade ba tey mun naa ñëw seetaan comme ñëpp mais que le meilleur ñoom ñaar quoi. yee damay toog nii seetaan rek comme. boo ñëwoon stade toog toog seetaan wàcc fecc ak Modou wàcc fecc ak eh, Siteu dama toog si kaw. yee non man maa ngi Sénégal. man maa Sénégal. ci Grand Yoff laa dëgg. Eh, loolu la quoi. Mm. mais kon dañ lay bàyyi rek dernier kàddu yi lu muy doon. waaw dernier kàddu yi mooy di santaat bu baax a baax di wax xam nga l' ensemble zone 7B de Grand Yoff nañu xam ne xam nga eh, seen doom seen raq xam nga mu leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñaanal ñu képp kuy mbër nekk zone 7 man Zarko maa lay tàllal loxo di la xam nga ngeen ñëw ñu ànd bokk ndey bokk baay xam ne ñun ñoo far ku ci gañe Grand Yoff la Zarko ñëw ci sa làmb xamal ni Zarko daf la yéene ndam mu ñàkk ñëw ak mu ñëw daf la yéene. nga gis ko soo open presque nga wala nga bañ ko gis def la yéene ñoom ñëpp samay rax lañu bu ma sañoon ñoom ñëpp ku ci nekk sa bis dama koy demal mais euh, nit munul loolu yàlla rek mun a matal ñëpp ñoom nañu dañu comprendre te lañu xam lu lees waxul ñu xam ni des fois waa ji day nekk ci ay mbiru boppam waa ji dafa am famille waa ji am na leneen loo xamante ni mi ngi ci ginnaawam te munul nekk fépp nañ ko comprendre noonu nañ ko xamee noonu ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay Grand wax dëgg yàlla cent pour cent kese la mun a am fii amul xaaj amul seen ñun ñoo ñaari écrit moo fa am muy écrit grand mbooloo ak écrit per Diaw te ñaari benn la kon donc ñooñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu ñu nangu kenn ku ñu xaajale man nag ci koor gi moom lépp lu waaye mën a wax ci Zarko ah maa ngi lay jéggalu di la baalu àq ci barki nodd bi di la baal àq ñoom ñëpp ku lu mbër bu nekk zone set b de Grand Yoff di la wax xamal ni man sa gaayan laa sa xarit laa sa raq laa wala ma nekk sa mag ñun ñëpp ñoo far ñoo bokk nday ak baay te sama nawle la seen ay nawle ñu nañu ñëw ñu ànd ñu boot Grand Yoff dem yóbbu ko ci kaw ah di leen xamal ni dog jot na ci ndakaar ak li ko wër wala salaam. Sénégal ka fay ngi yegg na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandi. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko.